dañoo gis problème mu Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi ngi toj dëkk bi est ce que loolu ëllëg mënul jur euh, loraange ëllëg suñu réew. waaw loolu moom vraiment ni ma ko gisee nii man de su fekkee fekkoon man maay Macky Sall dinaa bàyyi mu mu mu lépp mu sedd man Macky Sall laa wax ndax moom la président mu yow yaa yor réew mi moom tey dañ ko doon xeexal fii Sonko toll moom ba mu fa tolloo dañ ko ko doon xeexalee. kon tey moom bu fekkee tool na fi réew mi nar a toj moom mu naan sama yoon nekku ci loolu moom du waxam dégg naa dane sama yoon nekku ci ci li wax loolu du waxu mag Sall Macky Sall xam lan la war a wax. moom bu yoonam nekkul ci loolu moom waroon na mën a jóg ju dox ko Bougazelli bi ñu ko fi jàppee ci phobie moom waxu ci waaye génn na ca jàmm jàmm jàmm na meññ jàmm déggatoo benn affaire mu sedd. problème ni nga ko jàppee affaire bi da nga ko jàppee ne affaire complot la wala lu am la. dil bu rëy xam nga lan moo indi dil bi ci li ma gis bon Adji Sarr tey fa mu doon liggéeyee ka nga xamante ne moom la doon liggéeyal wax na bi ñu demee gendarmerie def nañ at att nañ leen foofu wax na tey bi ñu fa jógee dem na ki nga xamante ni si ne moo ko doon seet ah, wax na. kon tey yooyu yëpp nan la mën a dajee nekk fo. Euh, mbirum Adji Sarr nag moom euh, yàgg naa dëgg gars yi di ci wax que dem ak ñëw euh, li ma am li ma ciy wax lu tuuti rek la moo ñi war a génn wax nañ wax mag ñi nag lañ daan def ñoo ngi koy def ci suuf mais nañ génn biral lépp du dëkk Adji Sarr moom ma leer na ma leer ba addinay baax séeréer du daan fen benn. du dugg ci lu dul euh, maanaam séeréer du fen du du sàcc liggéey la xam daan doolem man leer na ma leer su fekkee ne lii dafa am njuuj njaaj su toogee kilifam dina teg si dëgg lii nag laa xam li nga xam ne lii moom nekk na nekk la nga xam ne jaaxal na ñëpp parce que réew mi suñu réew la Ousmane Sonko sénégalais la Adji Sarr sénégalais la donc nit ñi nañu essayer xool li nga xam ne mooy dëgg ñu doxal ko. dañoo woote démocratie mais wooy laa démocratie démocratie man kon seen turu démocratie bi ñu wax xëy na peut-être kon slogan la gëmuñu ko gëmuñu ko mais démocratie dëgg buñ koy wootee mooy maanaam ku ci nekk am nga liberté d'expression wax lu la neex wax wax sa xalaat. mais pas ay insulte wala di dépasé wala di saaga wala yooyu nag. parce que maa ngi dégg ñu naan euh, suba gars yi danañ génn def manifestation dox ba pale lu nekk ñu ngi ko si dégg moom moom lu ne mën na ci xew daal. waaw ñun moom parce que instant yi ñu ngi tiitaale gum ne parce que boromi njaboot lañ tamit en tant que jigéen Adji Sarr moom lii waru koon a def de ah lii moom lu nekk xaj na si de mun na taal réew mi ko mun na ko ñàkk xanaa ñu ànd ak dal rek ma gis daal man mooy police yi génn encadré leen ñu bañ a sànni la këram ma seen daal loolu bu ñu ko defee moom dara mun dara mun na si bañ a xew ñu bàyyi leen ñu wax lu leen naqari parce que ku nekk am nga lu la miiti tamit nañ leen bàyyi rek ñu génn lu nekk seen dënn yi moo gën daal. moom fu réew mi toll nii moom mën na def sax lu raw taal réew mi. parce que ko boo gisee li njëkk am fii nii jëli ko rek yow gis nga nu demee jël nañ cee taal ay osan toj ci ay station waaw xale yi ñu ngi fii sànni ay xeer réew mi nekk en danger mu nekk loo xam ne daal mënoon na ñàkk waaw parce que suñu réew mi ñun jàmm lañ fi soxla soxluñ fi nekk di grève wala di xeex ci ay affaires yu ay affaires yoo xamante ne nii affaire de viol ay affaires yoo xam ne daal doo comprendre ñun suñu réew mi ñun développement lañ ci soxla xale yi liggéey ñu bàyyi xale yi liggéey waaw mais pas pour nekk fii nii di def ay grève ay xeex tojante ay bopp tojante ay xeer te ñun ak police yu koy def daanaka ay mbokk lañ boo xoolee ay mag ak lañ waaw war nañoo mën a def leneen lu dul jàkkaarloog ñoom di sànnante ay xeer ak ay dóorante ay lacrymogène. Euh, chef yi waruñoo mën a génn wax ci comme ni ko suma Abdou Aziz Dabakh daan defee jamonoy Abdou Diouf. danoo war a jóg wax ñoom. tey war na nanoo mën a jóg wax parce que réew mi tey ci boppam Macky Sall dañ koo fal mais kilifa diine yi leen gën a respecté ki Macky Sall ba Macky Sall bu dee wut dara day dem ci kanamam seen kanam lay dem sukkuraam ñu ñaanal ko kon tey mbir mi bu agsee fii war nañ cee wax ndax tamit réew mi ñoom ñoo ci ëpp baat sax Macky Sall ñoom ci ëpp baat Macky Sall parce que Macky Sall bi wut dara ci ñoom lay dem ñu ñaanal ko ba mu am ko toog mais problème bu naree am ñun ci ñun lay jëm si Macky Sall du am problème ak i ministre am kon tey ñoom war na noo mën a wax mag réew mi dox ci jàmm nan wax. loolu mooy yoon man loolu laa gis man dama gis ne sëñ sëñ Mountakha dafa war a génn même su génnul sëñ Bass Abdou Khader Mbacké ñu essayé araftu wax parce que wax jot na wax dafa jot parce que sooy déglu si tele yi di déglu rajo yi wala di seetaan si internet bi. li ngay gisee ñu nekk côté camp euh, de l'opposition comme côté du pouvoir ñuy waxee kilifa du waxee noonu am na ñoo xam ne waruñu gën a seree di wax wala console la parce que yeneen wax yi wax yi dañoo méngoowul dañoo wuuteewul dañoo dañoo méngoowul daal dañoo tolloowul da gis ku wax tey lii suba mu wax leneen te jafe-jafe su amee dafa am lu ñu war a doxee mais soo waxee waxu parparloo doo wax dëgg loolu kilifa diine tamit dañ ci war a wax xalif général yi que ça soit Touba Tivaouane Niassène Léona Medina Baye Laayeen ñëpp dañ ci war a wax daal waaw les temps nag ñoom nag ñu génn wax parce que ils sont bien informé am nañ xam nañ ce qui se passe waaw mais bu ko nekk toogee sa ruq rek mun na jur yeneen conséquences yu doy waar daal ci réew mi. mais soo gisee instant bi kenn waxu ci benn instant parce que ñoom chef xam nañ ñoom seen bopp xam nañ duñ wax kenn dara mais ñoom ci seen jëmm bopp seen biir xam nañ. parce que xam nañ ne affaire caaxaan yi ñoom duñ ci dox di ci wax ñoom bu ñuy wax dañuy wax loo xamante ne nii waaw. mais yoon na tamit aussi ñu gis réew mu nekk di tàkk ñu génn wax ci ndax ñoom bu ñu waxee ñëpp bàyyi kon dañuy soxla des ñu génn wax. waaw dëgg la loolu moom benn instant moom ñoom war nañu mën a génn wax mais ñi jiite affaire bi ci boppam ñoom ñoo ko tegul ci yoon parce que ñoom bu ñu ko tegoon ci yoon suñ jiitu réew yi dinañ génn wax ko teg ko ci yoon affaire bi président. moom affaire waroon na bañ a yegg si fii ndax moom parce que dëkk bi daal laajul loolu moom wax dëgg yàlla. Sidi Lamine ba mu fi nekkee tamit soxla nañ saar yu mel noonu daal moom moom bu fi nekkoon léegi yi moom àdduna bu yàgg Sidi Lamine Niass ak maam Abdou Assis ñu ngi jooy ñooñu ba tey noppeeguñu de parce que coow yu mel nii daal ñoom daan nañ nag tamit nag ñu mel ni ñoom ñu génn wax ci daal lu mel nii. est ce affaire bi ah, mënuñ ñoo jàpp ne dafa ànd réalité ci politique entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. bu fekkee du politique timit bu fekkee ni waa kër mag Sall moom doxewuñ ci politique bëgg koo teg ci affaire bi ci yoon wala Sonko daa def lu mu warul def tamit luus na lëndëm na dil bi seetul nit ñëpp xam nañ ne seetul nan bàyyi loolu seeti leneen bu ñu yëngal dëkk bi bu kenn taal dëkk bi ca man Macky Sall laay waxal mooy ki nga xamante ne si ne mooy président de la république tey moom dara war na mën a teg mu ne déedéet nan leen xool nu mu gën a rafete def ko ndax moom bi mu ko arrivé ci Ablaye Wade Laay Wade bi nu waxee moom daf ko nangu xool ni mu gën a rafete ban bàyyi ko fi setal ko ci lépp ba mu nekk président tey moom noonu la war a doxe lii du dara day jeex mag Sall dootu fi yàgg day day dem Sonko bu nekkoon président tey du fi yàgg day dem li fi jëlee Ablaye Wade li fi jëlee du Diouf jëlee fi Ablaye Wade du fi bàyyi mag Sall. ñëpp xam nañ ne ñu si bëri tey Sénégal soo gisee mënul avancer d'un iota parce que tout dañoo politiser lépp lépp lañ politiser du dëgg te Sénégal ñun war nañ dépasser fa nga xam ne dañu war a topp réew mi politique guddi politique bëccëg nañ essayer xool ndaw yi nañuy def ba am xëy essayer xool mbay mi euh, baykat yi nekk di am jafe-jafe ñuy def ba am seen i ji ji bu baax ba nga xam ne variété yu baax yu nga xam ne nit ki suñu mënee bay mu nekk mu participer si koom-koomu réew mi. parce que affaire bu nekkoon wàllum politique du yegg fii yëpp saa comprendre parce que gis nga war a jëli nit rek mu duré duré bii nii ñu nekk ci jàppal bàyyi tey suba. parce que fii gis nañ fii ñoo xamante ne ni tey jii bu doon man mii maa ko def affaire bi du yegg si fii nii mu yegg si bu doon loolu noonu yow mii tamit yaa ko def suba suba ñu jël si la sa kër bu doon keneen ak keneen moo ko def du yàggee nii waaw ah man ci sama xalaat bu gàtt Sonko talut loolu noonu ay affaire de viol yu ñu koy jiiñ ay affaire yi da nga jàpp ne ah, affaire complot la quoi pour mën a kii waaw man affaire de complo laa ko jàppee parce que affaire bi fi mu toll nii di wax ah, yenn avocat yi ku ne di wax mel ni koo xam ne daal yow dañ koo dañ koo mere daal. d'une manière générale tamit laxasu na ci daal doy na waar daal mais Sénégal gi mu kenn mun nañ def ndànk rek kenn mënu koo taal réew réew mii nii fi ñu nekk nii réew Alaaji Malick réew Sëñ Touba réew Baye Niass kenn mënu koo taal réew Maam Limaamu Laay kenn mënu koo taal. ah ñu bëri loolu la ñuy wax de nee nañ daal affaire bi affaire yi politique la Adji Sarr benn victime la boo xam ne dañ koo utiliser. pour maanaam mu takkal Sonko Sonko weddi na dégg nañ tamit ñu ne Sonko dina génn tey si ngoon def conférence de ah ñu ngi xaar ba xam day wax lu waxoon bu njëkk wala day génn génnewaat dina information yu bees ñun daal ba keroog ñuy gis lu ñu mën a gëm daal affaire bi daal gëmaguñ ne dëgg la daal moom.